fi jóge ñoom ñi ni pour recapitaliser il faut ñu indi dajale trois cent cinquante milliards mhm. am kenn ko ci bokk tudd xaadim ba mi jiite loog Afrique na leen bon d'accord mhm. comme ñun léegi benn problème lañ am muy cinquante neuf milliards mhm. mooy suñuy perte te SAR am na terrain boo xam ni quatre vingt douze hectares lay jar boo ko expertiser tey dina jar au minimum cent cinq milliards mun leen nañu expertiser terrain boobu jël terrain bi hypothèque ko jox ko banque yi banque bi jox ñu xaalis yi ñu fay suñuy bor ba pare dese lu mat cinquante milliards ñu ne ko non duñ def loolu li ñuy def mooy dañuy bàyyi terrain bi foofu mhm. jël jël xaalis parce que xam nga xaalis moom xam nga numéraire moom dafa garaaw xaalis fu mu génn rek ay commission day am mhm. ay luy jaaki suufu table de am ay négociation day am donc góor gi booy bi na leen mais mënuñoo mënuñoo nekk foo xam ne nii am nañ possibilité boo xam ne mhm. mën nañoo régler suñu problème mhm. ngeen ni non duñu def possibilité boobu dañuy jël beneen xaalis ne leen xaalis boobu xanaa dafa am leneen lu ngeen ci lu ngeen jublu mhm. bi ñu waxee loolu Sarr ak Petrosen dem porter plainte Khadim Ba ni ko par force da ngay signé ne ko da ngay def li ñu woowee tubaab abus de minorité maanaam ma nga trente cinq trente quatre pour cent ni yow da ngay da ngay bloquer affaire par force bon tribunal bi xool affaire bi le quinze tey tribunal bi génne décision bi tribunal bi génne décision xam nga la tribunal bi wax. Mhm. tribunal bi daf ni un Ba am na droit en tant que actionnaire. Mhm. bu ñu demee ba soxla xaalis mu proposer. Mhm. deuxièmement kenn du ko du ko du jël beneen kii parce que dañ ne woon ni li li saar ak Peterson bëggoon mooy ñu jël beneen comité ad hoc boo xam ne seen yoon newul ci. amuñu ci dara pour ñu signer place su Ba. tribunal bi daan ni non seulement Halim Ba am na droit proposé deuxièmement amul benn kii actionnaire ad hoc bu ñuy kii pour mu ñëw di signer à sa place donc moom la jox dëgg maanaam moom lañ jox dëgg d'accord balaa may ñëw ci Cheikh léegi xaaral ma conclure ma affaire bi mhm. il faut sénégalais xam mhm. ban enjeu moo nekk ci lii parce que c'est très important. xam nga balaa enjeu yi dama bëggoon relance foofu balaa ma ñëw ci ndey demet euh, justement recapitalisation bi ñuy bañ ban jeexital la mën a def euh, ba tax ñoom ñu bañ ko Log Afrique ak ban jeexital la mën a def justement ci Sénégal. non Log Afrique bañu ko. c'est-à-dire Afrique li mu wax mooy. kuy wàllu yaan sa kël dafa tëggul. mënoo am terrain boo xam ne mu ngi jar cent quinze milliards. au lieu que nga jël terrain boobu dugal ko ci société bi nga ni da ngay jëli koppar xaalis liquide pourquoi nit ñi bëgg cash bi par force. <coughs> lan moo tax lan moo tax mënuñu jël seen terrain. def ko xaar ci banque bi jël xaalis boobu defar société bi. Mm-hmm. lan moo tax ñu bëgg a jëlaat yeneen xaalis parce que xam nga ni xam nga aussi xam nga réew mi. Kéba Mbaye dama ko mës a benn guddi man ma yërim man ah, kaa am fi mu toll nii réew mi ñëpp tëdd nañ waaye kenn nelawul réew mi kenn du fi nelaw kenn nelawul. lan moo tax nit ñi li ñu am ñu bàyyi ko fa ne dañuy jëli beneen xaalis xanaa xaalis boobu dañ ci am intérêt. Mm-hmm. nañu waxante dëgg yow am nga possibilité li nga xam ni moom nga leb. boo jaayee sa yëf boo hypothéquer sa yëf di nga am xaalis boo xam ni danga nga fay say fonds propres hmm. da nga fay say bool ba pare di nga mën a continuer liggéey d'accord nga ni loolu yëpp du ko def damay dem ci banque bi jël affaire bi jox ko benn société bu tëdd AFC boo xam ne kenn waxuñu bu bu mobiliser xaalis bi ñaata xaalis la ciy am parce que xaalis bi du jeex xam nga trois milliards nga jox ko nit mu mobiliser ko. Hmm. ay milliards yi milliards la ciy am. d'accord société boobu. Hmm. ñu jox pour mu pour mu mobiliser xaalis bi. mais milliards yooyu bu ko amee fan la jëm. fan la jëm kan moom moom milliards yooyu. société boobu AFC boobu ñan ñooy ay très bien muy laaj bu sàmm ah, xëy na peut-être dinañ dinañ si ñëwaat dañu jox kàddu gi Ndeye Dimet Ndaw moom it euh, mu introduire yi tàbb ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyoo jërëjëf Mouhamed mm-hmm. man aussi ma lay fay di nuyu Fatou Abdou mm-hmm. am mbégte dalal suñu grand Cheikh euh, Yérim gëj nga fi xaw na yàgg tuuti boobu ñu ngi foon ak suñu grand Ndiaye Doos ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana <laughs> alors ñu des ci Sarr bi rek ndax tey ñoom seen avocat dañu def conférence de presse di laaj Sarr cent soixante dix milliards cent soixante douze milliards donc tey Locafrique nee na day porter plainte hmm. mais est-ce que président Macky Sall war na xoo toog di seetaan ba mbir mi di egg foofu. Hmm. d'accord d'abord il faut ñu xam lan moo tax Locafrique di porter plainte parce que dafa am lu xew fii deux mille vingt et hmm. maanaam SAR ak afrique dañu signé benn convention. ci biir convention bi afrique wàññi prix yi mais à condition mu indi fi neuf bateaux ñu signé ko. biñ ko signé ba pare Log Afrique commencé di exécuter contrat bi SAR commencé di ci indi ay jafe-jafe dégg nga wax bi Xaadim continuer di exécuter contrat bi moment bi ñuy wax ni ñetti bateau brut ak benn bateau fuel mi ngi fii Sénégal di xaar ëpp na cent jours yoo xam ne ni Log Afrique moo ko indi dans le cadre de ce contrat SAR ni du ko jël. pendant ce temps Sarr jël na yeneen ñaari bato yoo xam ne ay ndoxo doxandeem ñoo ko indi Sénégal contrat yi nga bato yi nga xam ni moom la Xaadim Ba indi mu nekk fii ça fait cent jours hmm. Sarr ni du ko jël te bi ko Xaadim Ba di indi contrat bu wóor lañ signé ñoom ñaar moo tax parce que bu amuloon contrat du ko fi indi. Hmm. loolu la Xaadim ba di laaj maanaam. cher technicien ñi xaalis xaalis bi nga xam ni. Eh. comme ñoom dañoo signé woon contrat. Hmm. Hmm. ci contrat boobu moom mu indi ñetti bateau. Euh, euh, brut benn bateau fuel nekk fii saar ne du ko jël parce que am nañu contentieux ak moom ci recapitalisation bi ñu koy chantage ne ko duñ ko jël mais xaadim ni comme loolu la damay dem Londres parce que nag attention pétrole moom. Hmm. loolu mooy différence am ak yeneen yi. jag bu jàll <laughs> waaw maanaam <laughs> dafa am ay tribunaux yoo xam ne ba ci contrat bi dañ ñëwoon bu problème amee. Hmm. tribunal arbitral bu Londres moo koy moo koy. moo koy moo koy li ci li ci garaaw nag xam lan moo ci garaaw. justement li ci garaaw mooy dinañ condamné Sénégal. Hmm. fu fu fu lu Sénégal moom à l'étranger dem ñu saisir ko. après Sénégal yi di jóg ni bon benn sénégalais mooy def lii Sénégal. xam nga Sénégal li ñuy wax rek maanaam du ñu du ñu du ñu art man nañu ñuy waxati sax du ñu du ñu art du ñu a mënuñu xam nga nit ki da ngay artu. bala ngay arté voilà. da nga wax bi. parce que xam nga c'est difficile pour un Sénégalais. mu dem Londres porter plainte kon ci affaire boo xam ni. moo tax ma laaj la est-ce que affaire boo xam ni bu ñu demee nii nii nii nii nii nii nii. waa ji dem wane contrat am dañuy condamné Sénégal. moo tax ma laaj la est-ce que président mm, bu ñu condamné Sénégal ah. waaw bu ñu condamné Sénégal. Mm-hmm. ce qui évident mooy lu Sénégal moom bu génne te à l'étranger. dañ koy saisir après bu loolu amee lan la ñuy wax. Mm-hmm. un moo dem te te te xaaral wax la benn affaire xam nga ñun dañu am benn problème au Sénégal. maa ngi koy wax ci ces goulots ku étranglent le Sénégal dafa am benn benn chapitre bu tudd. bu tuddu euh, une culture régressive ma ciy wax ni le sénégalais déteste le sénégalais réew mii tubaab am na fi lu ne amul benn problème naar am na fi lu ne amul benn problème mais réew mii sénégalais du fi am dara est-ce que est-ce que gis ba Sénégal sosoo ba léegi mos nga gis ñaari bato ñaari bato ay bato ñaari nit rek lañ fi mos a téye seen bato fi au port muy Baba Diaw Itok ak Khadim Ba pourtant naar yi tubaab yi bis bu ne ñu indi fa ay bato kenn mësu koo téye lu baax la ma la hmm. fu coow bato bu ñu téyee fii am rek bato sénégalais la est-ce que dégg nga li ma la hmm. pourquoi les sénégalais détestent les sénégalais lan mooy problème bi Khadim Ba je vais t'expliquer hmm. en 2017 qu'est-ce qui s'est passé dafa nekkoon fayit fayit fayit xam nga fayit total fayit ñi nekkoon ci Sarr di jaay seeni action benn Ben Laden ñoo moomoon 34 pour cent saar boobu kenn bëggul a dugg ci saar kenn kenn kenn kenn. Hmm. boobu gouvernement Sénégal dem nañ ba Macky Sall sax moo résister mais am na fi premier ministre boo xam ni defoon na ci loo xam ne nii ci affaire u saar ba def cee sox xuloog président. dama lay wax di comprendre. pour ñu jaay saar débarrassé wu ci moom. dégg bu baax li ma la Khadim Ba ñëw jël 15 milliards jënd 34 pour cent. waaye xaalis boo tamit dafa am lu mu koy jural tamit de xaalis ba sànniwul xaalis. waaw d'accord kenn waxul dafa sànni xaalisam. Ah. mais dama la bu ko neexoon xaalis boobu. bu dem placé ko Genève dans un compte séquestre. Mm. mu koy rapporter xaalis bu dul jeex muy tëdd di nelaw. dëggal du dëgg. Mm. mais def ko risqué ci société boo xam ne xam nga benn laa Laden bu saar doon dox duñ jaay 34 pour cent dañoo ne dëgg. société buy dox kenn du ci am 34 pour cent di ko jaay. Mm. surtout ci domaine pétrole. nga xam ni bëri noo xaaral moo tax ma bëgg nga ñëwaat ci question waaw moom laay ñëwaat damay damay président Macky Sall war na mais pour ma ñëwaat il faut il faut ma expliquer d'abord parce que sénégalais aussi il faut ñu comprendre dañoo xëy suba rek coow li ni kër hmm, il faut ñu xam li xew avant après naa ñëw ci Macky Sall ay ca dégg nga léegi bi xaadim jëlee trente pour cent xaadim ak Petrosen signé benn convention boo xam ni Lok Afrique dafa war a développer Petrosen cadre convention boobu Khadim levé deux cent cinquante millions